at mu bees pas-pas yu yees ñu waajal suñuy 12000 francs CFA ngir jëmee Touba ca kanam ay ca murit liggéey bi bu mu laal suuf à partir du 1er janvier na ñëpp matal seeni at ay ca murit liggéey bi bu mu laal suuf laaj lu ñu man def fu ñu xam Touba ca kanam rek. 2022 bii ñëw man naa woo naa ñëpp man maa na yéen rek ñu ñuy pousse mu jëm ci kanam ak kanam. mën ngeen koo jaarale ci application Wave application Orange Money Free Money Wizall Money. 78 544 33 33 Touba ca kanam laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam.